ceeb bi ñaari bàyyi nga ni ceebu jën bu fanaanee ñaari fan bomb la du buy fanaan ñaari ci kër day bomb lay doon ci kër gi gis nga ñun sunu maam yi bu njëkk buñ daan xeexi danuy togg ceebu jën def ci sippax paañ ñu ne dee nawaay ñu def ci def ci li nga xam ne mooy bëgg am suul gisoo tey loolu yëpp laa defaraat dañ koy ub ak ki ci kaw fan ci kaw frigo bi wala waaw ci ginnaaw lañ koy aj suñu ko ajee ñetti fan boobu tubaab yi lañuy xeexal te tubaab yi am matériel te ñun ñun yoruñu woon matériel. kii boobu ñun yoruñu frigo yoruñu dara. ñu jël ceebu jën bi remplacer ko bombe Africa. mais pour mu nekk bombe dafa am état par état ginnaaw bi mu ñoree ginnaaw bi nga ko tegee ñetti fan ñeenti fan day transformé wu génnaat ceebu jën nekk bombe parce que composition yi yi ñu ko composé la. ceebu jën moom du ay fo. moom danga ko mën moom tey moom damaa lekk ba daanu. togg rek surtout ni nga ko roofe. waaw ban baaraam nga roofe. xaaral bañ ko mën waaye montre ma bi laay xool bar nga ci mbii nga war a roofe si. ceebu jën ñàkk am na lu mu defar ci peuple bi am na lu mu yàq ci peuple bi. ah bon. Nourou Bouch ceebu koy indi di ci lekk lu bari. <laughs> lu may wax damay étudier ci léegi nag man sama jëm boobu dama ay fleurs yoo xam si man la nekk. Ah yooyu après yow dagg ma koy taayal. dama koy arrosé. waaw da nga koy pompe nettoyer ko gabat fleurs yi. waaw fleur yi ndax indi fleur da ngay delloo ñu ci fleur ma ngi noonu. say fleur bàyyi ko man. dëkkaat gazete gazete gazete ka leen. sisote ko sisote ko. arrosé ko. waaw defal ko ba mu ko ba mu baax yooyu samay fleur la ba. bàyyi ma waaw naa man du ma jëndi fleur am na ay fleur mi ngi doonu. bàyyi ma ko lii rafet na kontaan naa xaw ma sax la laa la war a wax. du dara du mbëggeel du dara. suuf la def xorom guy ma ko laaj mu ne ma aw daa xorom. lii de ba ma ko ba may dalee sëy ak moom ba tey. moom ma 10 ans de mariage ba ma amee 9 ans lañ ma ko may. Mm. ba léegi nii billaay mosuma jox lii. mais amul sensation. galaaw xam nga mbëggeel dafa am couvre-feu. couvre-feu mooy première tentation bi ngeen njëkk gisante yéen ñaar loolu ngay yëg mu koy yëg loolu tubaab wooyu couvre-feu. su ma la waxee dara du mu gëm de dañu doog a gisante yow sooy doxaan gel doo ko jox benn affaire bu romantique tàngal bant dara ma ci juróom xoolal may jaay romantique man xam nga romantique ma delloo ko ko rek. moom dafa romantise. romantise ak romantise bokkul. jugóob tuuti ma jooy. Ah, ak kudur fa ak kuur bokkul. waaw bu fëlloon fii bu ko laajee trois cent mille su ma ko joxul sax ma continuer koo seeyal galaawul man daal bëgg naa la. ayca. naa yaa ñàkk na. gason yi rek boo si paree rek nga jubli si maa ngi reposé déggoo ma ne la bàyyi ma say say fleur yow. say fleur bàyyi ma moom maa koy defar ba mu baax dama bëgg nga waatal ma ci yàlla que Wally Seck moo la doon woo te soxna ay dara moo décroché téléphone bi loolu laa bëgg nga leeral la ma ko léegi rang muy gaaw yow laay déglu. je damaa tomb damaa dinaa ne waat ay salaamaaleykum. ma petite mouche je vous jure dama tombe dans les insectes. lan nu muy loolu yow di ba façon waat la. sama maam yi nekk côté Nigéria ay wàll yu nekk Nigéria la ah damay waat di di tànn ay maamu jàmbur te am sa ay maam yi nekk Nigéria di ay wàll yi te xam man musuma fen jëm ci ñoom. ñooñu boo waatee ci lu ay dans un cercle yooyu ñooñu wali kaamil kii bois bois bi ngay ban bois. kii bois IBM na nga di fëgg lan ngay fëgg nii yow. luy bois IBM luy bois la la la la reine ou la je ne comprends. oui ok. Euh, eh, eh. ay ah. Eh, s'il vous plaît madame est-ce que mën nga toog. je t'aime je l'aime. mais da ngay toog tu sama orange <laughs> ok eh, voilà ji bi ànd. ay caaxax rek la mën a mujje ah. dara bettuma ci lii. Euh, de toute façon euh, dama leen bëggoon wax. Hmm, ci seen présence. que dama bëggoon demander à cette magnifique dame. Ah, <laughs> que est-ce que pare nga pour sëy ak man. oh. bàyyi su ma tooyee yaa may suñu. encore Tafa. Dodo Fexe Tafa. su tee su te doon. Tafa. Tafa. Ré ré ré. Regarde la la la. Tafa ça va. si teen ok bi dafa jeex wala. dafa nekk euh, s'il vous plaît ah, mais bàyyi leen ko rek bàyyi leen ko. oui mais pardon après dinaa changer plat. non ñëwal nii kaay. Ah, kaay nii.